dal leen ak jàmm mbir mu doy waar moo xew ca Thiès ab xale bu jigéen buy wuyoo ci turu Marème Diagne nekkoon ab étijant ca université bu cees moom lañ fekk ca biir këram daat koy faat mbir moomu mi ngi xew samedi bi nu génn foofee ca Thiès bi ay boori 15 heures jotee ay minutes rek ginnaaw mbir moomee mbooloo mu takkoo takku daal di teg loxo ki def jëf ju ñaaw jooju moom waa ji sax mbooloo mu jot nañ koo làpp laata polis di ñëw di ko jël si ñu bëri ci askan bi nag jàppoon ni lii ab agression à la vidéo mbir mi ab assassinat bu ñu prémédité la maanaam ab meurtre bu ñu waajal bu ñu sukkandikoo nag ci témoignage yi nga xamante ni police def nañ ko ñawteef gi ki ko def mu ngi wuyoo ci turu Assane Gueye mu ngi juddu ci atum 1984 nekkoon ab moodu moodu fee ca Maroc di fa liggéey marchand ambulant moom Assane Gueye nag mi ngi xamal waa police ni dafa jóge ca Maroc uniquement ngir rey si kii di Marème jaañ ndax ab corom la woon te daf ko bëggoon ba dof lool te kii di Marème Diagne lépp la ngir moom million millions envoyé ki nga xamante ni moo di Marème Diagne mi nga xamante ni faat na bakkanam ngir bëggoon a marié ak moom waaye ki nga xamante ni Marème Diagne waaye xale bu jigéen bii di Marème Diagne daf ko woor yile kàddu moom la Assane Gueye yëkkati ci kanamu enquêteur ginnaaw bi mu defee jëf ju ñaaw ji ci fàttali rek Assane Gueye bi muy bàyyeekoo ca réewum Maroc ngir ñëw ci réewum Sénégal avion la jël ñi nga xamee ni sax ñoo di ay membre famem Assane yëgalu leen benn yoon ni day ñëw ci Sénégal def jëf ju ñaaw ji waxal lu la neex ñoo yàq société bi Eh, gerak. Kau kebal, balik kepada mereka. waaw léegi ma lay laaj loolu du fii nga koy réglé boo àggee police bi nga ñu ne tur bi nag la. Moustapha la. waaw ñu nekk mooy fan ci mën na fal. mën na fal station. waaw jàkkaarloog lycée bi. waaw xaaxaam école. fi xew fii tey jii nu mu demee lan nga seqal. waaw fi xew daal demeewul naan ñun dañoo ñëw yegg si même minutes mais bu ñuy taxaw moom ñu ngi gis waa ji muy def demi tour di dugaat si kër gi si la ñuy dem toog fee ma ak sama waa ji même pas cinq minutes ab taxaw si kaw terrasse bi yuuxu jàpp leen jàpp leen si la daw topp si ginnaawam seen ko mu ngi yor benn paaka bu weex ma daw ba poñee ko ginnaaw ne ko lan mu ne ma damaa rey nit ma ne ko rey nit mu ne waaw ma ne ko kon dañ lay rey si laa ko dóor ñi songoo ñi njëkkante paaka bi maag moom si la sama waa ji ñëw daw ne kii rey na ban waxtu la woon loolu. ay deux heures ah parce que koñ fi dafay wéet. Hmm. ay deux heures la parce que waa ji mënoon na ko rey ba génn dem yoonam. ray kan la góor la wala jigéen. jigéen la rey jigéen la. amul ah ñaata la war a toll ku jigéen bi. ku jigéen bi à peu près. Ah, waaw ah waaw góor gi moom. Marème Diagne Marème Diagne xale kër gi la dëkk. ci kër gi la dëkk doom paa bi la. ah oui doom paa bi xanaa kër gi amul ñu fi nekkoon jamono jooju wala. bon kër gi maman boobu noonu. borom Pikine bi moo fi newoon. ak gel bi si boppam ak yaayam ak rakam. loolu kese ci lan la doon yëngu. femme bi exact xaw ma lu muy liggéey waaw. Ah. waaw la waa ji waxee ne rey na nit après ngeen jàpp ko. bu ma waxee rey naa nit si naa ko si laa ko dóor. am benn booy bu tudd Fallou génn fekk ma fa maag moom ñoo ko dóor ba dugal ko si kër gi. Mhm. si nañ ko dóor ba takk ko. si la nit ñi commencé ñëw nag. Mhm. mais man bu ma yéegee si kaw ba gis ndaw si mu tëddee. ma wàccee dama ko dem rey. mais paa si boppam ak koñ waa koñ ji maire yi. ñoo ñu téye bàyyi leen jàmm am na loo xam ne du liggéeyu police. Mhm. gis nga nit su rayee nit dañ koy rey dañuy waxante dëgg. kii bi kon bi nga yéeg si terrain fekk nañ moo ko xëcc ba si kaw si dër bi. foo fees dell ak deret bu mel ni maanaam yaa ngi tiim sa gëlëm la ray mhm. gis nga rayoon tey jii du demee neneen. mais koñ gi ko foo jigee paa yi ko jàppee tàkk après police moo ko jël si waaw police police yàq nañ ko lu yàgg police di ko soog a jël même sapeur avant woor nañ ko ba sonn mënuñu leen jot papaam ni ñu mujjee woo papaam moo daal otoom ñëw fii kii moo ko wàccee si kaw dugal ko si 4 4 papaam ci lan la yëngu euh, xaw ma lu muy liggéey nag parce que dina ma romb tout le temps xaw ma lu muy liggéey ah. lu mel ni day faral di am fii si mën na ko tali bii nii tali bii tali bii bëri na agressé fii moom dañ fiy agressé. Ah, waaw mais ray moom c'est la première fois. léegi di ñaan tali ngeen am tali tali bi di leen di lay problème. bu mu fi indee lii tali bu mu paree moom guddeeg bëccëg gaa dañuy agressé dañuy agressé dañuy toog. xanaa amul ay lamb. amul lamb amul dara. Mm-hmm. am na loo xam ne nag maanaam jeune koñ bi ñoo ko war a taxawoo muy sécurité koñ bi ñun ñoo si war a taxawoo. yaa ngi dégg du liggéeyu police. waa ji bi ngeen ko jàppee lu mu wax fan la dëkk ak. waa ji depuis démb buñ tasee mu may naan yóbbaale ma police ma ne ko mënu ma laa yóbbaale parce que nii laay aw mënu génnee benn passeport ne ma damaa am problème yóbbu ma police ma ne ko sawaay man mënu ma laa yóbbu police si loolu laa ko xàmmee leen sànq nag ñi croisante fi ma ne kii xàmmee naa ko ma ne Diop waa ji da nga ko xam hmm. Diop ne ma kii xaw ma ko ne ma kii est-ce que wér na mu ne ma non kii su wéree tamit léppam ñëw si waxtaan boobu sawaay di dal sama kaw ne ma su la nit arrêté ko yóbbaale te yàlla tax ma ne ko bokkuñu direction bu ñu dem dem. mais moom dëkkul ci koñ bi. dëkku fi nee na ngent la dëkk. moom démb loolu la mu wax nee na ma ngent laa dëkk mais dama fi ñëwoon fi dama fi am problème. waxu la nu mu tudd. waxu ma nu mu tudd soo ko gisee waa ji si ay 30 ans yooyu lay toll jeune la quoi. mais yéen jàpp ngeen man na Fall amul kaaraange bu wër. amul kaaraange lu weesuwul. lu weesuwul maanaam gars yi xanaa policiers yi daal guddi gi dinañ génn def ramasse nii suñ gisee borom jakarta yi jàpp leen à part yooyu moom amaatul benn sécurité amuñu ñu ngi nii amuñu dara. amul secret lamp yi yéegi nii. léegi lan ngeen fas yéene def lu ngeen xalaat ne mooy. xamal lu ñuy def dañuy ah. mobiliser suñu koñ fii kuñ fi xamul yenn heure yi la gisee da nga dee ñun loolu kese nañuy def defuñu leneen ñun seen nu mel na faal fii. neewul si euh, euh, la gisee dañ yoon dëkk yoon lañu léegi lan ngeen xaar si yoon police jël si na ko dem nañ buñ jigéen bu taal dem nañ police gars nangu ñu ñu dugg nangu ñu ñu wax moom daal police téye na ko yóbbu hôpital parce que moom it dafa dagg boppam xam naa nu mu téye woon femme bi da ko bëggoon rendi soo xoolee loxoom fii ba fii dafa xotteeku waaw man songoom ma sa moom dee na bi dee na femme bi day ku ñuy jam lu mot ay 17 paaka si si puut ak fépp jam loxo bi xaw ma da ko bëggoon a def pièce d'état sax ma nu mu bëggoon def. daw si nu day la tudd taw si xale la. li si waay wax loo siy dolli. waaw man moom lu ma siy leen na la rek mooy tey ñun war nañoo fexe ba ku ray rek ñu ray la wax ci parce que tey tey zone koñ bi dañ jëloon décision pour ray ko famille ñoo taxaw di en tout cas loolu non du fi amee du fi amee mais loolu moom loi boobu lañ bëgg mu am ak ku ko mën a dégg nag ku ray ñu rayal ak fépp nag ku mënti doon. ray ñu ray ngeen waaw loolu moom jeune pas mënu ma si xam dara parce que baa ngi koy a gis tey te aussi tamit man boobu dama nekkoon si pression parce que man maa ngi doon sauver femme bi gars ñoo nekkoon si waa ji man si femme bi laa gën a nekk ci concentré fam di ko moo tax loolu moom mënu ma si xam yaayam rek fa newoon wala waaw bi cest à bi yaayam mi ngi fi mm, euh, waa kër gi tamit aussi ñu ngi fi mais dañ nekkoon si suuf moog yaayam ñoo newoon si kaw Seex ñun Cees nañ seen famille ku ko si wutal kayitu dof ba ñu libéré ko si dëkk bi nañ dëkk fu ñu dajeek moom muy dox si dëkk bi dañ koy rey loolu na leer dem ñu jëm kaa wutal kayitu dof naan dafa dof doful jinne jàpp ko bi nga ko jàppee jàpp ku ànd ak sa ko nga jàpp waaye ku ne ma rey naa nit yóbbu leen ma police kooku dof na ah ku ne rey naa nit def lu muy def bàyyi ba koñ yi calme bu mu lu muy def daa bàyyi ba xam ne deux heures jot na élèves yi wàcc nañ nit ñi dañuy toog dallu. mais yéen euh, poste poste police mën na faal est-ce que yaakaar ngeen mën na assurer kaaraange bi yëpp. parce que benn poste rek. non non non non non loolu moom ñu fii benn police doyul Médina Fall dafa màgg. dafa màgg màgg gu garaaw te aussi dëkk bu mag la aussi fii benn police doyul. police war na fee dugg gendarme war na fee kaaraange gi daal moom. moom des na lu bëree bëri. daal bëgg ngeen ni yoon def euh, liggéeyam. agression bi moom dafiy am à tous les moments mais ray moom mi ngi fi door am tey mais agression bi moom dafiy am moom tous les moments moom ray nag moom ñun moom vraiment ñun mënuñu ko supporter moom. waaw léegi léegi li ma lay laaj loolu du fii nga koy réglé boo àggee police bi nga ko réglé. ok voilà léegi dama woo police. police dañ lay booy du liggéeyu police. Mm-hmm. gis nga nit su raayee nit dañ koy ray dañuy waxante dëgg. kii bi kon bi nga yëg ci terrain fekk nañ ubbi na yaay moo ko xëcc ba si kaw si dër bi foo fees dell ak deret bu mel ni maanaam yaa ngi tiim sa gëlëm la ray gis nga suñ ko rayoon tey jii du demee neneen mais koñ gi foo foo jigee paa yi tuur ko jàppee takk après police moo ko jël si waaw police police yàq nañ ko lu yàgg police di koy soog a jël même sapeur avant woo nañ ko ba sonn mënuñu leen jot papaam ni ñu mujjee woo papaam moo daal otoom ñëw fii kii moo ko wàccee si kaw dugal ko si 4-4. papaam ci lan la yëngu. papaam euh, xaw ma lu muy liggéey nag parce que dina ma romb tout le temps xaw ma lu muy liggéey. lu ni day faral di fii si mën na fa. tali bii nii tali bii tali bii bëri na agressé fii moom dañ fiy agressé. Ah, waaw mais ray moom c'est la première ñëpp di ñaan tali ngeen tali tali bi di leen indil ay problème. bu mu fi indee lii tali bu mu paree moom guddeeg bëccëg gaa dañuy agressé dañuy agressé dañuy tëb. amul ay amul lamp amul dara. Mhm. am na loo xam ne nag maanaam jeune koñ bi ñoo ko war a taxawoo muy sécurité koñ bi ñun ñoo si war a taxawoo. yaa du liggéeyu police. waa ji bi ngeen ko jàppee lu mu wax dëkk ak. waa lañ buñ tasee mu may naan yóbbaale ma police ma ne ko mënu ma laa yóbbaale parce que nii laay aw mënu génnee benn passeport ne ma dama am problème yóbbu ma police ma ne ko sawaay man mënu ma laa yóbbu police si loolu laa ko xàmmee la sànq nag ñi croisante fi ma ne kii xàmmee naa ko ma ne Diop waa ji da nga ko xam hmm. Diop ne ma kii xaw ma ko ne ma ne ko kii est-ce que wér na mu ne ma non kii su wéree tamit léppam ñëw si waxtaan boobu sawaay di dal sama kaw ne ma su la nit arrêté da ko yóbbaale te yàlla tax tudd. waxuma nu mu tudd soo ko gisee waa si ay trente ans yooyu lay toll la quoi. mais yéen jàpp ngeen ne mën na Fall amul kaaraange bu wër. la gën nekk ci concentration di ko sëte. Hmm. waaw moo tax loolu moom mënu ma si xam. ak yaayam rek bi c'est-à-dire yaayam mi ngi fi hmm, euh, waa kër gi tamit aussi ñu ngi fi mais dañ nekkoon si suuf moog yaayam ñoo newoon si kaw. ñoo nekkoon si kaw Seex ñun Cees nañ dëkk waa bu ko police jàppee dof la dem teg doful jinne jàpp ko seen famille ku ko si wutal kayitu dof ba ñu libéré ko si dëkk bi nañ dëkk fu ñu dajeek moom muy dox si dëkk bi dañ koy rey loolu na leer tam ñu jëm kaa wutal kayitu dof naan dafa dof doful jinne jàpp ko du ko jàppee jàpp ku ànd ak sa ko nga jàpp waaye ku ne ma rey naa nit yóbbu leen ma police kooku dof na ah ku ne rey naa nit def lu muy def bàyyi ba koñ yi tànn bu mu lu muy def daa bàyyi ba xam ne deux heures jot na élèves yi wàcc nañ nit ñi dañuy toog dallu mais yéen euh, poste poste police mën na faal est-ce que yaakaar ngeen mën na a assuré kaaraange bi parce que non waa ji Europe la jóge hier je ne sais pas hier ou avant bi mu ñëwee fekk ñu marié benn euh, fiancé am léegi nag mu laajte ana ndaw si ndaw si ñu ni ko ndaw saa ngi bërëb sàngam mu dem fekk ko fa bi mu ko fa fekkee amul dara lu muy def lu lu jël jaaseem di ko corotee di ko cere jaasi ji def ko enveloppé ci benn euh, mouchoir croyant que ni dafa jëndi woon pain wala daal xamuñu woon sax ni waa gi romb na leen mais xamuñu woon ci ni femme bi la jëm bi mu jëmee ba ci femme bi la ko corote ay jaasi ay jaasi ba mu dee ambulance baa ngi di ko jël di ko dugal ci morgue bi. man maa ngi tudd Badara Gueye. Euh, li xew ni ndaw si yow lan ngeen bokk. ndaw si de moom sama doomu nijaay la te jii xaw ma sax affaire bi demee dañoo nekkoon sànq di liggéey léegi ñu daal ñuy woo téléphone ni da doon am ku yéeg fekk fëy ci kaw daal di jam ñun na xamuñu dèjà seen bi nan la demee ak affaire yooyu mais de toute façon daal fekk na ko ci kaw yéeg ba ci kaw kër gi fi pa néegu papaam ak néegu ci kaw lay waa ji dugg mu jaaree ba dugg ci kër gi mais yéeg na daal ne métti na ñëpp wax dëgg yàlla rey na ko bu ñaaw dafa doon a sàkku wala la ah, moom loolu moom xawma daal waa ji lu nekkoon ay intention am parce que ñëw na daal yéeg ci kaw jël bakkanam rey ko ci anam bu ñaaw dem yoonam mais de toute façon daal ñun li li li waa ji intention am ñun xamuñu ko xamuñu da doon sàcc xamuñu da koo ñëwoon pour ñu yebal ko pour mu faat ko xamuñu da ko doon violer mais faat bi moom am na ci anam bu ñaaw. waa ji moom dafa ma dafa wéradi wala lan moo ko dal. waa ji de man moom mosuma ko wax gis mosuma ko xam fenn parce que gis naa ci vidéo yi daal ñu koy wax mais d'après daal vidéo bi ni ma ko gisee bon nuruma ko conscient daal bu baax a baax.